xel moo ko mën. waaye jàmba. waaye jàmba si soxla. ak ji si soxla. pouvoir spirituel taxawaayam. pouvoir spirituel taxawaayam. njaboot bi. njaboot bi. ba ñu gërëmee président de la république. gannaaw ba ñu gërëmee président de la ci liggéey bi fee. liggéey la boo xam ne nit ku ne mën na cee teg sa loxo. liggéey waaye li des bari waaye li des bari bu ñu defee benn. bu ñu defee benn na fukk bi ci njëkk bi ci njëkk mooy mooy dund bu cher dund bu cher bi monsieur Amadou Ba monsieur Amadou Ba da ñëw ngir déglu da ngaa ñëw ngir déglu doléance say njaboot doléance say njaboot dund gi borom kër yi nelawatuñu. borom kër yi nelawatuñu. ku amoon téeméer. ku amoon téeméer. di ci faj sa soxla. di ci faj sa soxla. tey boo ñu ngi lay ñaan. kon ñu kër yi. borom kër yi. wàññi leen charge ci des. bi ci des. ku nekk ci réew mi gis nga ko. ku nekk ci réew mi gis bopp. diis la bopp suñuy njaboot suñuy njaboot ñu ñëw ci ñun di ñëw ci ñun di ak bëccëg di bëccëg di ñu ko jàmbat di ñu ko jàmbat kon bu ñu amee occasion bu mel nii kon bu ñu amee occasion bu mel nii faaw ñu gaaral faaw ñu gaaral leen mooy immigration bii xew ci réew mooy immigration bii xew ci réew suñu doom yii di dugg ci gaal yi di dugg ci gaal yi di yëg ci montagne yi di yëg ci montagne yi dara di waralu ko te dara waralu ko am lu ñu war a faj am lu ñu war a faj te amuñu ko. ñuy jàmbaar. ñuy jàmbaar seen i wayjur di sonn. seen i wayjur di te amuñu luñ leen teral. te soxla nañu ndimbal. fa ñu jëm. fa ñu jëm. ay immigré lañ fay fekk. ay ñii dañuy dem di waxtaan ak ñoom. ñun ñii dañuy dem di waxtaan ak ñoom. ñoom ñëpp seen yaakaar seen bëgg-bëgg. ñoom ñëpp seen yaakaar seen bëgg-bëgg. ñibbisi ci réew mi. mooy ñibbisi ci réew mi. fa man tey duñ dund ko tey. te mënuñu ko te mënuñu ko. am nañu ko jéem am nañu ko jéem. waaye dañoo mujj dellu. loolu itam monsieur le premier ministre. loolu itam monsieur le premier ministre. Euh, tiis la ci réew mi. tiis la ci réew mi. bëgg nañu ko saafara. bëgg nañu ku ko saafara. ñetteel ba. ñetteel. te dama cay lépp. te nee na da cay yem rek ndax mënta lim lépp. mooy soxla nañu justice sociale. mooy soxla nañu justice sociale. ndax réew. justice au service de la vérité. justice au service de la vérité. moo ko mën a yokk. moo ko mën a yokk. dóor doom. dóor doom. làq doom. làq doom. bokk na ci liy indi déséquilibre. bokk na ci liy indi déséquilibre. kon nañ ci góorgóorlu bu baax. kon nañ ci góorgóorlu bu baax. bokk na ci tiisu réew mi. bokk na ci tiisu réew am na kilifa bu mag ci jamonoy tubaab am na kilifa bu mag ci jamonoy tubaab bi. ñu ñëwoon ci maam Cheikh Mbaye. ñu ñëwoon ci maam Cheikh Mbaye. borom kër gii borom kër gii. di sàkk ci moom ñaan. di sàkk ci moom ñaan. muy ngelaw muy ngelaw Diouf. di bëggoon di bëggoon. jot réew jot réew. waaye ñaari baat rek la ko wax. waaye maam Cheikh ñaari baat rek la ko wax. ne ko na fexe. ne ko na fexe. ba may ñu jàmm. ñu jàmm. yàlla. ñu jaamu yàlla. waaye na nga góorgóorlu. waaye na nga góorgóorlu. ba baadoola yi. ba baadoola yi. seen coono jeex. loolu. loolu ëmb na lépp ëmb na lépp jàmm. jàmm wax ko ko léegi si bu mu amul mën la am développement mënul am justice sociale mën la am justice sociale mënul biir néeg ci biir néeg bi sànq yaag sëriñ yaag nga fa lu am solo wax nga mooy disparité bi am mooy disparité bi am ci ñi am ci ñi am ak ñi ñàkk ak ñi ñàkk te ñi ñàkk gis ni gis ni am amu ñeneen yi am amu ñeneen yi ci ëpp yi ci ëpp teguwul ci yoon teguwul ci yoon loolu day indi frustration. loolu jar naa saafara. loolu jar naa saafara. ñi ngi ñaan. ñi ngi ñaan. suñu borom bi dara tëwul. suñu borom bi dara tëwul. yaakaar ak yéene ji nga am. yaakaar ak yéene ji nga am. ci réew ci réew mi. te mu gën ci réew mi. te mu gën ci réew mi. yal na ko sama borom mett na ko ci bële borom kër gi. borom kër gi nag. kër gi nag. nit boo ko bëggee xam. nit boo ko bëggee xam. te fekkee woo ko. te seet li mu fi bàyyi. seet li mu fi bàyyi. dinaa ci tudd ñett fekk moom ci bopp di yow sa bopp tuddoon nga ko. maam Cheikh Ahmadul Kabir. maam Cheikh Ahmadul Kabir. xam nga ni kooku mu monsieur premier ministre jóge. ku nekk xam nga ne kooku monsieur le premier ministre jóge léegi. da ko taalibeem taalibeem la turandoom la turandoom la doomu boo xam ne doomu boo xam ne bi mu koy yebal bi mu koy yebal dafa nekk demal kokki demal kokki nga jàngale nga jàngale alquran alquran ku ñëw ku ñëw na nga ko jàngal ngir yàlla na nga ko jàngal ngir yàlla xàmmee wuloo xaadir bul xàmmee xaadir bul xàmmee laayeen bul xàmmee laayeen xàmmee murit bul xàmmee murit bul xàmmee tukulóor bul xàmmee tukulóor bul xàmmee wolof bul xàmmee wolof ku ñëw ku ñëw jàngal ko jàngal ko ngir yàlla. gis nga dafa nekk ci ci ci gis nga dafa nekk ci dong. kenn du ca fay dërëm kenn du ca fay dërëm. lépp moo ko yoroon lépp moo ko yoroon boppam. loolu mooy jëf ngir yàlla loolu mooy jëf ngir yàlla. benn buntu loolu benn buntu la. ci buntu kër maam Cheikh Mbaye. ba ko ñaareel. ba ko ñaareel.